fédération bi ëmb mbooleem daayira maam jaara yi nekkee ci ndakaaru ci njiital soxna maam jaara mbàkke moom sëriñ muntaxa bachir ak ñi mu àndal liggéey bi ñëwoon ci sëriñ isaaxa mbàkke moom sëriñ basiiru mi jiite fondation maam jaara buso doon ko présenté ay projet di ay naal yi ñu am ci daara maam jaara ji jëm ci atum 2021 bi lu jiitu ñu koy leeral li jëm ci projet yi lee leeral nañ sëriñ isaaxa mbàkke liggéey bi nga xam ne fédération daara maam yi nekkee ci ndakaaru def nañ ko waaye buñ masaan dem si ñoom dañ leen di wax rek ne leen eh, li ñuy woote moom jotewul dara ak daayira bi eh, da ngeen di continuer na ngeen daan defee waaw kay waaw bu dee li ngeen daan dajee par weer wala par semaine yéen xam waaye loola moom jotewul dara ak lii waaw ah, bu dee li jëm ci carte yi itam carte fondation bi jotewul dara ak lii moom it na ngeen ko daan defee di dem di ko daggi noonu ngeen koy continuer euh, parrainage bi tam te nga defoon ko muy lu am solo moom tamit ñu ne leen dañ koy gën a yokk ndax day lu am solo buñ damaan ci ñoom loolu lañ leen di njëkk a wax lii nag day lu ci dolleeku rek loo xam ne dina tax ñu gën a mën a jekku liggéey bi dajaloo euh, gën a mën a liggéeyal soxna jaara ci toolu lislaam bi euh, booba nag bi ñu leen di wax daan nañ leen wax ni euh, bëgg nañoo def ay projet lu jëm ci Poroxaan ngir bëgg rek euh, mbooleem soxna yi nekk ci daara ne daayira maam Jaara Buso ci ndigalul kilifaam gi nga xam ne moo ko ci joxoon ndigal ngir nu doon wenn say te ku ne xam na ne lépp lu kenn man ñaar ko ko dàq ba tax na loolu it wax nañ ko léegi bi ñu ci booloo ba léegi gis nañ ci tawféex ju yaatu. ndax képp koo xam ne membre nga ci biir fédération bi sasoo nañ la boo jëndee carte membre bi ñaar téeméer ba pare ngay joxe weer bu dee bu nekk juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu gis nañ ne ñu bëri bëgg na noo liggéey waaye doole yi dafa néew te am na ñoo xam ne ci daayira yi xëy na duñ ko bëgg nañ ko mënee soxna si ne képp koo xam ne mën ngaa jël maam jaara nga jël ko ci sa individuel ku mënta jël maam jaara juróomi téeméer yooyu dañ koy safoo muy téeméer bi comme li sëñ Abdoulahi jóob doon wax léegi téeméer bi day dem ci social bi nga xam ne moom la ñuy dimbalantee ñun ñi ndax ku ne xam na ne jamono metti na te dimbalante day dañ koy ittewoo beneen ñaar téeméer bi moom la ñuy def ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu bëgg a dugg def ca daara ja beneen ñaar téeméer bi moom la ñuy sax di ko dajale ba bu ñu dajalee fukki nit ak juróom yu nekk ñu boole seen ñaar téeméer muy doon parrainage benn maam jaara ñu yónnee ko ca daara ja loolu ñu ngi la koy dégtal na ñu ngi ci liggéey boobu liggéey bu am solo boobu soxna si di ko di ko def. yéene fédération daayira Maam Jaara yi nekk ci Dakar mooy tabax bâtiment boo xam ni R plus 3 la ca daara Maam Jaara ja ñu xayma ko ci 194 millions de francs CFA yoo xam ne teg na. soxna si it bi ñuy waxtaanee mu xamle ne ay mbébéba mbébétam mooy ñu fexe lu ñu def ca daara ja maanaam comme ni nga ko waxee buñ déggee say kàddu. mbooloo mooy doole te ku ne xam na ne Dakar day capitalu Sénégal te lépp lu fa waay bëgg a def suñ ci àndee rek ñun soxna yi ak daayira soxna maam jaare yi rek mun nañoo yóbbu liggéeyu daara ji fu soree sore xalaat booboo ñu juraloon ñu wax ne fi nekk ni liste d'attente yi am na soxna jaare yoo xam ne dinañ nekk ci liste d'attente yi ba seeni at weesu te duñu mën a dem ca daara ja te ku ne bëgg na sab soxna jaara dem ca biir daara ja ndax ku fa sox soxna jaara dekk rek am nga taw féexu ku la gis rek dana la ñee ci kaw loolu lañ fexe woon ne nañu fexe lu ñu mën a def soxna maam jaara ne bu fekkee ne lu ñu ciy def it dañ koy def nii rek provisoirement mu yem ci ñun ci bureau bi ba nu ñëw ba waxtaanee kook yow ba nga jox ñu sa accord ba pare ñu door ci def lépp lépp loo xam ne mooy officiel ba fi mu nekk nii sax ba ci ba ci surface bi dañoo def une surface estimative moom la ñu def ba nga joxe ndigal ñu doog a dem ca bërëb ba bu fekkee ni am na leneen liggéey boo xam ne moo gën a jàmp loolu boo ñu ci joxee ndigal bu soobee yàlla dinañ ci taxaw liggéey ko ndax fi mu nekk daayira yi dañ koo yàqanti ndax xamuñu ko woon te ñu ngi ci doon def liggéey bu am sox solo muy Soxna Maam Jaara daan na wër di dem ci daayira yi seeti daayira yi suñ demee tegal leen vidéo bi nga xam ne yaa ngi ko def ci dénk ko moom mii mu fexe fédéré daayira yi nekk ci biir Ndakaaru yëpp buñ demee wax leen ko nit ñi dañ cee sawar sawar cee ànd ak moom pour liggéey boobu gën a mun a yokk daara dañ koy def R plus 3 léegi xaalis bi mi ngi toll ci cent quatre vingt dix cent quatre vingt quatorze millions cinq cent soixante dix neuf mille six cent francs loolu daal la ñu yaakaar ne bu nu ko amee war nañu projet bi nga xam ne moom la ñu bëgg a yóbbu ca daara ja war nañ koo mën a am. soxna jaara mbàkke moom sëriñ muntaxa ak ñi mu àndal liggéey bi def nañu ay jéego yu am solo ngir utal fédération bi récépissé waaye taxawal ay commission yoo xam ne ñooy ŋànk liggéey bi ndax lépp loo gis rek balaa ngaa tabax foog nga am fondement bu dëgër ñu ne woon léegi dañ koy formaliser formaliser bi mooy ñu ngi ko utal ay commission yoo xam ne keneen ku ñëw di nga yëg sa bopp ci liggéey bi comme que dañ ko bugg a yaatal ñu ne woon léegi dañuy def ay commission yoo xam ne Mbàkke dana tax liggéey bi gën a mën a dox dana taxit ña daan joxe seen addiye ñuy xam fu ñu koy dugal commission bi njëkk bi ñu ne woon nañ def commission accueil commission accueil rôle mooy bu ñu woowee mbokk taalibe yi buñ ñëw dina carte membre ñooñu ay nouveau adhérent lañuy doon nouveau adhérent boobu day yittewoo ko womat ku ko xamal ku ko yee ci fédération bi loolu commission accueil mooy jouer rôle boobu commission administrative nag moom day doon commission boo xam ne lépp loo xam ne ci wàllu assemblée yi ci wàllu réunion yi ci wàllu lépp lu ñuy tëral loolu commission administration moom mooy doon mbiram mu yegg ci commission finance ñu gis ni comme comme mbooloo mi day yaatu boobaa addi ji mun naa gën a tonawu te balaa addi ji tono foog nga utal ko plateforme boo xam ne dana tegu ci ay loxo yoo xam ne rek dara du tasaaroo ñu ne woon léegi nañ tëgg commission finance boo xam ne day am trésorerie am commissaire au compte am lépp loo xam ne rek dëppoo ak jamono bi tey ñu ne léegi dañu amaale commission communication commission commission communication boo xam ne mooy gën a yaatal liggéey bi ci réseau sociaux yi ci télé yi ci rajo yi ci fépp ci loolu sax xam naa bu ci yeggee am na benn télé boo xam ne numérique la ci YouTube bi ubbi nañ ko muy Jaaratulaahi TV bu ñu jógee foofu commission organisation mu doon commission boo xam ne lépp loo xam ne dañ koy jéem a organiser moo xam ay ngontu maam jaara moo xam ay assemblée générale loolu lépp lu ci àddu ci jëm ci commission scientifique commission gestion protocole commission sécurité loolu yëpp commission organisation moo koy moo koy englobé bu ñu jigee foofu ñu jël commission culturelle et social commission culturelle et sociale mooy daara ji tey toll na foo xam ne si mel ni suñ ñoom suñ maam aas yi suñu groupe boobu ñu amoo si as néew ñoom ña ngi fay jàngale di jàngal soxna yi nga xam ne fereguñu ijj ba ay kaamil sax ñu ngi ko fay wàccee loolu commission culturelle moom la ñor lu tax ñu toog si nag social dañuy gis ne nit diine teggin yi war nga xam ne mën na dimbali nit ci sutura ba kenn du ko yëg loolu nit ñi nga xam ne jàng nañ diine ba xam seen diine ñooñu ñoo ko gën a mën a man moo tax ñu toftal commission culturelle et sociale. am na soxna yoo xam ne daanaka mën nañ ne fer nañu ijji léegi te ci groupe whatsapp bi lañ leen ko jàngale alxuraan yi sam naka noonu am na ci soxna yoo xam ne ñu ngi wàcc kaamil te loolu ci eh, groupe bi lañ ko amee ak bi ñu tàbbee ci daara ji ci lañ amee lu mel noonu yi yemuñu ci loolu lu mel ne istixfaar ak salaatu ala nabi yi yooyu yëpp tam yu ci bare bari dañ koy amal daanaka àllarba ju ne ak alxames eh, di ko àddiyaale soxna Mariama bu sa jaaratullaahi kon du daara daayira boo xam ne rek dañuy daje teg ba dem poroxaan dem wala nu daje teg ngir def dara waaye ci biir daje googu dañ cee fexe bëgg a royaale jikkoy soxna Mariama bu sa jaaratullaahi yooyu. di wax ne tamit mbir mi dañ koo defo bi ñu bi ñu tàmbalee soxna si da doon dem noonu rek. biñ demee ba gis ne danoo am jéego yoo xam ne dañ ko war a yëkkati ci 2021 bii ci la ñu sabablu woon ñu ànd ak moom dem wuti ji ay këyit ndax dañ daan wax ne yëf yi c'est informel ndax ñaare di nga dem ci nit di wax ak moom ci liggéey soxna ci liggéey soxna jaaro bi sax waaye day yaakaar na xëy na boo amul ab compte bancaire wala amoo kayit yee ca war xëy na sa bopp rek a tax ngay wax ak moom ñu waxtaanee ko woon ba nga xam ne soxna si taxaw na ci loolu ba nga xam ne fi nekk nii am nañu récépissé ci turu fédération des daahira de Maam Jaara boo xam ne am nañ ko ci mois de novembre bi lañ ñu jox récépissé boobu am nañ ko léegi mu officiel. sëriñ Isaaxa Mbacke moom sëriñ Basiiru bég na lool ci liggéey bi nga xam ne fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci dakaar def nañ ko ci njiitalul soxna Maam Jaara Mbacke Muntaxa rawatina projet yi nga xam ne moom lañ ñëw présenté ko ko muy bâtiment bu mag bi nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal ca daara ja man doon gën def li ngeen di def itam te itam daanaka du ngeen ma ko yëgal wala ma ngeen ma ko yëgale neneen waaye loolu lépp li nga xam ne xaj na nangu ngeen maa ngi ànd ak yéen ci liggéey bi di ci soññe loolu tax yéen itam ngeen def noonu kon nag gën naa dëgëral sama njort lu rafet ci yow ci ni xam ne liggéey bii eh, war nga koo mën a àggale fépp fu nga xam ne ab liggéey bu mel nii liggéey maam jaara bu mel war dafaa mën a àgg te loolu nga tàmbalee feeñal bu wóor a wóor a wóor yaakaar naa ne ñii nga tàmbalee àndal boobaak léegi ñu ànd ak yow buñ gisutoon ñu gisoon ne leneen a tax wala am na yeneen yoolal kon duñ ci sabari nii duñ ci ànd ak yow nii waaye nag danga nga nekk muy dëgg ci yow nga fas yeneen liggéeyal sa maam ànd ak mboole mi liggéeyal yéene leen ko ànd ak ñoom liggéeyal leen kooku nag alhamdulilah kon nag ngeen tàmbalee àgg ci itte ju réy joojule moom ay xamal ne kon fa ngeen jëm incha allah dangeen ngeen fa àgg te itam loolu du ay du ay rêve lu mën a nekk la ndakaaru xam nañ ne ña la may wax toujours ña fa ne am na ñu fa nekk ñu boroomi Pastef yu mag nit ñu nit ñu nit ñu bëgg lu baax xaj na ñu baree bari bëgg nañoo def lu baax waaye xamuñu fuñ koy def kon nag rôlu daayira bi rôlu rôlu fédération bi mooy dajale nit ñi jëmale leen ci liggéey yàlla liggéey bu baax loolu yaakaar naa ne ñu baree bari danañ ko dox ndax du àggee ni sax kese loolu dégg naa ko ci wax ji te noonu la war a nekk itam xam naa ne noonu nga koy gën a defee du caagee ni rek ñu nekk ci daayira yi rek waaye liggéey bi moom ñëpp a ko lañ ko war di wax raw na sama njort ci ni ma jàppoon ne euh, wala boo xaj na ci kanam di kanam kanam waaye ni ngeen tàmbalee rek euh, ak ambition bu rëy bi himma ju rëy ji jooju wax dëgg yàlla euh, euh, xaw mën naa ne bett na ma euh, même bi ngay ñëw tey itam jàpp moo ne woon ne da ngeen am programme bu mel nii ak ambition bu rëy nii kon nag alhamdulilah loolu ndokk yàlla bi nga xamee ne loolu lépp ci yow la jóge ànd akoog taalibe yi ànd akoog daayira yi fas ko yéene ànd ak taalibe yi ànd akoog daayira yi te tàmbali ko di ko def jàpp naa ne noonu lay continuer dara dara a amul amul benn projet buy bu bu bu ambition itte ju ju rëy yi eh, eh, lalut mu mën a dem itte ju rëy ji ngeen ko def te lépp di yàlla moo tax ma gëm ne dangeen ci àgg ndax bu doon ay ambition personnelle kooku moom lu ne mën na ci daal di dugg waaye lii lépp liggéeyal Sëñ Tuubaa ngeen ci liggéeyal Soxna Jaara kon nag wóor na ma ne li muy rëy rëy rëy yàlla mën na ko àggale te jàpp naa ne itam dana ko àggale nangeen ngeen continuer ci lii nii yoon wi eh, organisation bi ak di xamal nit ñi ak di soññ nit ñi eh, loolu lu ambition bi rëy rëy lu lu projet bi rëy rëy yaakaar naa ne bu boobaa itam mën ngeen ko àggale organisation bi ñu def daara ja nga xam ne nga xam ne qualité bi ñuy yore daara ji bëgguñu dara lu ci wàññiku moo tax it bëgguñu jël euh, lu ëpp lu nga xam ne ambition bi waaye loolu loolu itam daal nay bokk ci seen ambition ndax mooy daanaka yor daara ji ci la nga xam ne mooy dund bi te li ci gën a jafe moom itam mooy dund bi ak detuwaay dund bi euh, fan yi bi ma mujjee laaj ñu ngi ma naan daanaka ñu ngi ci ay 18 millions xam nga loolu li may wax amut benn organisation privée nga xam ne ay membres ye ñooy assurer loolu par weer boo ko dégg rek ay subvention ak leneen ak leneen moo ca dugg waaye lii nga xam ne membres yi rek ñooy assurer lu toll noonu amul fenn loolu Sëñ Tuubaa man soxna Jaara moo mën a utiliser lu toll noonu sëriñ Isaaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru santaat na leen bu baax a baax ñaanal leen waaye ñaaxaat leen ci ñu gën a yaatal liggéeyub soxna jaara bi nga xam ne warul yem ci daayira yi ak jigéen ñi waaye jullit yépp ci lañu bokk rawatina góor ñi